léegi topp euh, nañu may premier élément deuxième élément bi wala troisième bi yëpp mën nañ ko ku jéggi mooy ñëw ku ah? jéggi ku jéggi ku jéggi ah, léegi dem naa voilà Abdou kii am na am nañu fi élément boo xamante ni. Mm-hmm. yaakaar naa ne mi ngi jëm ci mbirum sax miraas mm-hmm. am na ci tuuti. Mm-hmm. mais incha allah rabbi bu ñu ko topp mayee ñu dem ba ñëw bu demee ba ñëwaat si ofrana yooyu bu si xajee il faut ñu dem fa. dugalal la ko ak góor ñi nga xamante ni it seen i borom kër dañ leen di soxla ñu ne damaa sonn ndax nee nga jigéen ñi taaj teñ leen si digg jaxal na ma fooy teg góor ñi. <laughs> Abdou Tom ñu dem te ñëw. salaamaaleykum oustaz maa ngi lay ziar. di ziar waa plateau bi yëpp di rafetlu liggéey bi saas dama amoon sama benn euh, xarit boo xam ne nii da doon sëy soxnaam daal waaw ci biir bi ñu am na ñetti doom mais bin après dañoo am problème ci biir bi ñu amee problème waa ji moom doon na toppatoo ay doomam ci ni mu waree daal mais bi ndawalee lu mat at yooyu noonu ci lan daje si benn xew ñu gisantewaat xam nga ànd bi ñu àndee nag far ëmb sosuwaat ci bi ci ëmb sosee léegi ñu bi ndaw ci ëmb léegi ñu jël ñu jël ñu jëlaat ndaw si jox ko ko ndaw si ñëwaat ci biir ñëwaat gi amaat nan yeneen ñaari doom maanaam masalan muy muy juróom benni doom daal am nan ko léegi nag waa ji dafa nel dafa làqu bi mu làqoo nag ñu ne ci miraas mi kenn ki am am na kenn koo xam ne nii du doon waaw loolu daal moo doon suñ problème daal ñii ne day doon ñii ne du doon loolu daal moo taxoon ma lay ma naa woo oustaz laaj ko ba xam lu si diine wax wasalaam ñu ngi rafetlu liggéey bu baax ñu ñaanal ñëpp jàmm ak salaam jërëjëf. oustaz dégg nga ko de nee na dafa am kii koo xamante ni am na jabar. am na si ñetti doom. am na soxnaam ñetti moom. Mhm. bi mu tàggoog moom jabar ja ñibbi na mhm. yóbbaale na doom ya mhm. moom it li ko waroon ci doom yi mi ngi koy def mhm. diiraa at ñoom ñaar ñu am fu ñu tase maanaam soxna sa ak waa ji ñu sëy biñ sëyeet ëmb am ca bi ndaw si ñibbee ba mu demee ba am doom moom it ñu moyaat ko ko mu ñibbi si waat ëndaale waat doom yi ñu continuer nekk di sëy bañ juraat yeneen ñaari doom neen bi fi waa jógee nag ñuy miraas benn paa jógee fee naan kee du bokk si miraas ñu naan farforce si bokk ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ak baay loolu mën nga ko si indi ay leeral. maanaam ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ak baay ñoom ñëpp. am naa ak moom ñetti doom. dem dem ñëwaat am ak moom ñaari doom benn si digg. dajeeg moom njaaloo ak moom. Ah. kenn jotu ko takk yaa ngi may dégg Assane kenn jotu ko takk. boobu kenn takk ko sëy bi tas na ba pare. bi mu tasee mat na un an ci li nga ma nettali. du noonu la mu njaaloo ak moom fan daje ñoom ñaar ba njaaloo ak ñoom mu jële ci ëmb. ba mu ëmbee après ñu takkaat sëy boobu bañ ko takkee après mu amaat ci ay doom léegi ñuy laaj ndax doom yooyu dina dinañu donn wala duñ donn gis nga muulu waaw ki dox ci maanaam ki nekk ci juddu ci hors mariage bi kooku la ñuy laaj ne kooku la ñu seppe ne du doon mais ñun ñen ñu ci hors mariage maanaam seen ñetti dafa dafa ne am na ñetti doom mm. ñu tas dem waaw tase fenn njaaloo ko ëmb so ëmb soq ëmb soqee ko bi mu wasinee ñu am doom foofu ci waajoo bi mu wasinee waaw waaw ñu delloo ko waaj bi mu wasinee ci doom jooju waaw ñu delloo ko mu amaat ak moom ñeneen ñaari doom voilà muy juróom benn ak ñaari fii nag dama bëgg ñu déglu ma fi bu baax a baax a baax benn bi sew sew bu rëy da cee am hmm. gis nga bàyyi sax li ma la wax sànq ca dépasse direct moo ci am solo jigéen day xam valeur hmm. day am personnalité day xam moom mooy kan premièrement sëy nañu ba am ñetti doom sëy bi tas na mhm. gis nga jour ba ñu dajee ñoom ñaar defaat rapport sexuel mhm. la leen sariya jàpp ñoom ñaar ñëpp rendi gas kam ba mu xul eh, suuf waay sariya gaaw na de <laughs> bàyyi na may déglu ah, dama ne la bi ñu sëyaatee ñoom ñaar la jàpp ñoom ñaar ñooñu daal leen rendi maanaam lu ñuy wax rajmo la leen def parce que ñoom ñaar ñëpp sàngewu nañu moo tax boo xasee am soxna boo xasee am soxna yow boo ci sariya boo xasee am soxna nga defaat beneen njaaloo feneen am nga soxna de nga njaaloo ji feneen am soxna ba pare dem njaaloo ji feneen sariya nee na la jàpp rendi la xat sit moo du bari na ñoo jox di nuyonteeg ñoom ci sariya dañ leen <laughs> rey nañ leen bu yàgg lu sariya li mu wax xamu boo ko waxee da ngay man ne ngeen ni beneen bi mooy sëy bi. mais sariya bu mas laa wutoon ak ñee na si. sëy bii laa lay wax nii bii sëy bu leen rendee sëy hmm. dafa am lu ci sariya tuddee sariya façon tas yi dañoo bari. Hmm. mais sëy bii sëy bu xaram la mut la xam. ñoom ñaar seen sëy maye gañ leen maye. Hmm. ba ñu amaat sa ñaari doom. sariya sax àndul ci loolu. ah loolu ah lu taxul sax. métti naa yow la ñuy déglu lu tax ah. talaaq boobu la tuddee talaaqul batta c'est-à-dire maanaam am na sëy foo xam ne fu mu fay fu muy toll. waaw yow ku jigéen ki de ku góor ki dalay araam mut la xan non bu dee bu fas yi ma dee ñett bu dee mm. su ma déglu di dina simple mm. te di ngeen comprendre waaw xam nga sëy ñaar la ak talaaku marrataani mm. fase ñaar la ñetteel bi boo ko xasee wax lañ naan dangay ngay baax de zone waaw loolu xam nañ ko du jàng nga loolu xam nga loolu très bien léegi nag kooku su defee loolu ba pare xam nga baax de sow ji am na pare maanaam foog nit ki amaat jëkkër amaat jëkkër tas tasaat sëy bi loolu a mën a am mais batte nag li tax mu doy waar ah, Baye Assane mooy ndaw si moom dalay araam a lu tax lu tax mu araam la li koy loo mooy tas nañu sëy bi ñoom ñaar waaw diggante waaw mooy ñu trouvé waat solution àndaat ci charia su boobaa day doon première facette ñu songu deuxième facette bi ñu songu deuxième mariage charia dina ko ko may mais waaw foofu ko ëmbalee laal na xam nga charia rey na ko moo tax sharia araamal diggante boobu la ca topp yëpp sharia da ko araamal. waaw léegi bu fekkee ñaari booy yi si buum bi sax duñ nga xam nga xam nga bu léegi damay wax mu damay wax mu li ko wax pour a gàtt. kenn xam nga kenn reconnaître xam nga ku mu ku mu reconnaître ci ñoom. Hmm. mooy ñetti doom yi mu njëkk a am. waa léegi Oustaz lii nii Oustaz Oustaz ñetti doom yi mu njëkk a am ñooñu la charia di conservé. ñooñu la ñu dem ci imam pour ñu takk sëy bi hmm. imam ba takkaat sëy bi dafa xamul lii nga wax. ñu xamul ko ah déedéet. bu ah. non xoolal attention. imaam bi mayewaat sëy boobu. waaw imaam bi maye sëy bi. bi ñu koy wax leeraluñ ko lool. Hmm. parce que imaam bi du fekk koo xam ni charia da koo rey. attention dama ngi la bari na sëy yu ñu maye sama soxna si laa bëgg ñu delloo ma ko. waaw waaw bari nga koo ëmbaloon. waaw oustaz léegi oustaz kon maanaam mais naa ko ba pare mais ci diggante bi ëmbaloon naa ko ba ñu fi benn doom oustaz ndax charia bi xam nga charia la la may déglu ngeen mu leer fii seen nopp ëmbal nga ndaw si am na ñuy laaj loolu takk ko nag de. Mhm. nga pare bëgg ñu may la ko. waaw sariya ni la demal ñu may la ko. ah waaw. oustaz dama dama comprendre. maa ngi wax ci départ bi. célibataire laa la wax. waaw moom laa la wax. lu tax ñu war a rey ñi bàyyi. moom lan ñii dañu leen war a dóor amul interprétation. dañ ko jël aj ko foo xam ne. diine ji ñun jël ñu ko attention. diine ji moo am mais boo waxee règle yi oustaz am na règle yeneen règle yu nekk accord yoo xam ne yëpp ci bu ko amuñ bokk atte bu fekkee ne defal naa mais kii kii daa am kii daa am lu muy mos te kay amul ma ne doon sëy Assane may a dindi bu ñu doon sëy xam nga sëy aussi dañuy xool tas bi lan moo koy andi. Mm-hmm. maanaam di ñuy sëy bëggante lool. Mm-hmm. ñuy dem a dem ba suñ sëy tas te man doyalul moom doylu man doylu ma mm-hmm. yaa ngi dégg. xëy na am na ay mbokk yu taxaw wala ay paramètres yu taxaw ba sëy ba tas. maanaam di mii ñuy làqatu di gisante. ba am lu ci am. loo xam ne ci ci fekkul fekk ñuy sëy. waaw léegi est-ce que l'islam ni mu mën a toléré ñaar ñi nga xam ne dañ leen koo aaye. dañ leen ne yéen ñaar moom bu leen laal bu leen jege. xam ne sëy nañu ba am ñetti doom ñun est-ce que ñoom waruñu am prolongation. Mm-hmm. maanaam jurisprudence boo xam ne. daf leen di dugalaat ci game bi ñu di continuer. léegi nag bu fekkee jurisprudence boobu dafa am ñeneen ñu ko wax nga bokk fa yow jëloo ko bëgg a jël beneen jurisprudence. ça nous pose problème déglu ma nag Moodu. waaw léegi wax ñu na ñun ñëpp comprendre. Ah, acte marié bokkul. Mm-hmm. mais lu tax marié bi war a gën a mën a sax. célibataire bi Souleymane Diaw mii toog fii. pour man célibataire bi fii mooy àtte man àttewu ma. maa mhm. ngi yéen a ci yam suba boo xëyoon jàngi ko un mois. Mhm. xam àtte yi boo ñëwee toog. mais jëlal beneen téere oustaz bi nga ne teg ci ko table ji. dama lay wax téere rek jëlal beneen téere xam nga Ibrahima ñu ngi seetaan. waaw azaniyatu wa zani kullu waahidin minhumaa mi'ata jaldatin pëy pëy pëy ba muy téeméer. waaw ci jaalookat bi te njaalookat bi waaw maanaam mooy ki nga xamante ni amagul jabar hmm. ki amagul soxna waaw kooku la seeree nii ah, ñoom ñaar nañ leen dóor téeméeri yar yàlla def ëmb am na ca hmm. bàyyil ba ëmb bi jeex hmm. ndaw soosu nga takk ko am léegi xam si jabar la woon nag boo ko takk boo ko takk da am dégg li ma la de da a boo ko takk maye nañ leen maye nañ jëkkër ak jabar ngeen am ñetti bant. waaw mm-hmm. ah, fii daa war a leer. léegi waxatuma la sa jabar jooju de. Mm-hmm. fase nga ko. Mm-hmm. xam nga xam nga fase nga ko. fase nga boo njaaloo te beneen jigéen. charia nee na yow nañu la rey. waaw te fase nga sa jabar ba pare. fase nga ko sa jabar de nga dem njaaloo beneen jigéen. mooy sangewu nga. charia nee nañu la rey. moom ku jigéen ki mu njaaloo beneen góor salaire yi nañ ko rey. léegi yéen ñaar yéen a daje. sariya rey de. dégg nga man amoo ci li nga wax. d'accord naa atte sariya. waaw xam ñoom doon. sariya. Oustaz sax may leen may ma s'il vous plaît maa ma laaj Oustaz Oustaz xam nga bu dee ci jànk bi am na loo ci wax lu tuuti mais xaw na dese sama bopp parce que ki xamagul ki amagul jëkkër maanaam xutba wuñ ko mm-hmm. suñ ko ëmb lañ naan la may ko 40 jours mm-hmm. bu 40 jours yi ma tey ñu takk ko mm-hmm. yaa ngi dégg wax bi kii am nag jëkkëram ñetti doom ci farata yàlla suna su Muhammad ñu tàggoo ci audio waa ji dégguma benn yoon ñu ne fase nañ ko fasewaat ko ndax defe naa buñ ñu ko fasee fasewaat ko mooy nekk baara saudi keneen war ko takk mu takkaar te benn yoon nag la fase am ci benn yoon fase bi am ci la rëccile ànd ak waa ji ñu njaalo mm-hmm. doom boobu ci sama xalaat bu gàtt mm-hmm. kon man damaa jàppoon ne doom boobu rek moo warta doon mm-hmm. parce que moom doomi njaalo la donte charia dóor na leen ci léegi yeneen ñaar ñi nag ñi judduwaat ci kaw farata lañ judd kon jàpp naa ne juróomi doom sama xalaat laay wax de damay laaj ba tey pour man sama xalaat juróomi doom yi ci buum ci farata ak sunna ñoom ñoo war a doon benn bi ci diggante bi muy orjo bi moo warta doon parce que liñ muñal jànk bi certes jànk ak ki ne ci buum ak ki nekk ci buum bokkul kee muñal nañ ko doon nañ ko téeméer yar léegi kii nag ñu xaraamal ko te doom yi judd ci farata ak sunna te benn yoon lañ ko fase luñ fase benn yoon ñu takkaat ko ndax parfois nit fase nit te fekk doylu ci moom ñu dolloowaat leen ñu dolloowaat ci la judd ta tam très bien xam nga mm. mm. mm. foo xamante ne moom moom daf ñu ñu naan ñu ne au-dessus de la loi l'islam moom daa ñu supérieur loolu lépp am ay règles am mu teg xale bu jigéen bi xale ji xam nga léegi tënk rek ki tënk bi mooy ki nga xamante ni charia da ñoom charia ci charia laa ni la balaa ñuy wax wax yi ñee dinañ doon luñ doon ndax charia reconnaître na leen. mais farata la noonu. maa ngi ñëw de maa ngi ñëw de ñëw buukee dafa am question bu dugal farata gi de ñii charia da leen ñoom ñaar raj moo lañ leen di def. ñu dajee waxuma xale bi judd na mais bam bi jëkkër ak jabar yooyu dajaloo rek njaaloowaat ci lu dul se ci kaw sëy donte la ay jëkkër jabar rek charia ne nañ leen rey oustaz da ngaa dugg ci kon charia duggatul ci ñoom waxaara charia reconnaître rotu leen ñoom jàpp ne ñii ay jëkkër ak jabar rek oustaz d'accord oustaz bam bi mel bam bi bam bi bam bi foofu ne amul man man ma dem rey nit charia ne nañ ma rey mhm. kon man su ma amee jabar après man doom yi ma am yëpp doomu njaaloo la parce que man lislaam wax mm. xam nga lislaam <laughs> soo amee jabar. <laughs> man célibataire la waaw ma rey nit. waaw nga rey nit lu mu wax. nañ la rey. man rey ñu ma. waaw ñu bàyyi la ma xëy ñu ma dem ñu tëj ma 10 ans. waaw ma génn takk jabar. waaw ah. léegi man sëy ba daganu. waaw ah. doom yi ma fa am jabar ndax man lislaam wax na nañ ma rey daal 10 foofu da ngaa laaj. waaw très foofu de lislaam da la koy daganal waaw dégg oustaz da nga may déglu ma da nga may déglu ma déglu ma de yow rek laay jël ma déglu rek lu ma xamee ci téere yi nga nekk waaw man fi doon ne ma waxee sama xalaatu bopp waaw ci téere yi nga wax rek ci dafa rey nit waaw dañ la koo atte mais Sénégal dañ koy atte ñoom waaw fii tamit atte wuñu ku njaaloo ñu rey la lay wax déglu ma yéen seet ngeen laaj de waaw ok comme charia ngeen laaj. charia da lay wax li fi xew. waaw léegi mais réew mi Sénégal atte bu doon atte charia la ñuy atte wu Sénégal. ku rey problème yi fi am nii nii. waaw ki rey nii bu ñu ko jàppee problème mu lii bi ñu doon wax sànni sànq. mais dañ koy rey. dañ koy rey waaw. mais atte woowuñ ko. Mm-hmm. mais li la lislaam wax yow basé wuñ ci loolu. Mm-hmm. xam ne donte la Sénégal atte woowuñu ci àtte l'islam mais oustaz docteur bi joxe garab bi yàq am na kooku tam charia topp ko daal bu baax a baax dam bi ci la dafa <laughs> moo tax ñi joxe pilule yooyu ngay dégg pilule di lànne meeg pilule di jeer <laughs> waaw ñoo ci bokk yem moom <laughs> ñoom ñëpp ñoo ci bokk yem l'islam man xatala nafsan mutaamidan fa ka annama xala xatala naas jamian man xatala nafsan mutaamidan fa jazaa'u jahannama xaalida leer na téere la ma la wax loo xam ne wax xalaat Oustaz moom damay président waxewul xelam waaw téere lay andi wane nag ñu koy jëndit hmm? ñi jaay kawas yi maanaam protégé yi ñu dama ko fekkee xam nga ma xaaral xaaral xam <laughs> nga ma dajale xam nga man yàlla dañu <laughs> dimbale ma defee sama ngoone lu bari ci borom ci suufu borom xam-xam bu Alaaji Sid Lamine Niass dañ fi toogoon ñu mhm. débat posé fi ñu ne woon Sénégal day importer nangami mbir ci préservatif waa mm-hmm. Jamra ñëpp jug yuuxu mm-hmm. fekk ma nekk ci ronam mm-hmm. mu ne ñoom li ñu xamul mooy Iran nga xam ne république islamique la état bi day financer pour ñu defar ay euh, ay usines yoo xam ne dafay defar préservatif te fii république lay la xam nga xam nga Oustaz Assane mun munoo lii maanaam nga bëgg ko ci diine bëgg ko régler te xamoo effet utilisation bi ko utiliser surtout kàppul munul munul araam ci diine ah. déedéet xam nga tax mënul araam ci diine mhm. Assane Mesere mun naa am soxnaam soxna su bu jëlee ëmb feebar bu ko ciy dal mun na koo rey Assane dañ koy may muy sol préservatif bi. dëgg la munul aram munul aram munul aram eh, eh, Basan. waaw kàppoot araamul ne. déedéet moom jën jënd mbuusu dërëm yi ñoo yam waaye utiliser kàppoot moo araam. <laughs> bay déggoo ma de Assane. mbuusu dërëm yi. dama ne nag kàppoot di ak mbuusu dërëm ñoo yam. waaw kàppoot man Souleymane Diaw ne la Assane. araamul araamul tey tey doo doo doo génn fii ndax danga ne planning dafa araam. planning moom mënut a araam. Moussa tey Moussa tey gars yi gars yi tamit li nga teg li nga teg ci diini jëy dafa métti tey ci kaw gars yi. kenn mënu ko sàkk dem dem jëndi ko muus la muus la mooy utiliser jamono di nga koy utiliser lotee rek bam bi yaa ngi koy utiliser ngir man niyu ngay bañ hmm. suñ ci jàllee woon direct suñ ko bëggee hmm. doom mën na caa juddi nga ni hmm. déedéet naa jël benn benn am wala ñoom léeg-léeg bu ata doon usa doon usa tax usa sariya yàlla <laughs> non sere da def la ko saf xam nga lu tax sere da def saa sa dee non si sere kat moom doy na waar moom tamit sere tamit war nañ koo yóbbu baax parce que Oustaz la non déedéet yow ak seen yow sëñ moo Oustaz xaaral non xamal la parce que alxuraan kay rek s'il vous plaît xaaral Oustaz Oustaz non xamal la moo tax ma lañ xam nga man oustaz oustaz sare nan la kër mën a tolooree hmm. jigéen bi dem joxe boppam keneen te jëkkëram ëmbalu ko hmm. mu xam ne xel jëkkër ji ëmbalul ko moomul doom bi sare na la ngénteel doom ji par force nga dee doom jooju doon par force maanaam ndaw si nga man may sëy ma dem jox muuru sama bopp mu wóor ma ne man bonheur jurul doom ji moo doo ko jur sariya ne na bonheur ngénte doom ji ñu ne déetawaay xaaral ñu ne hmm. déetawaay ñu ne na ko ngénte bu bonheur deewee yàlla yéex ma ko ñu ne doom jo daa dond te léegi sariya maye mayewul kii tas nii kii joxe question ni ci télé bi même eh. mu rita mbale aaye nee na ñu tëkkaat ko ci kaw farata ñu ne kooku nun xaraam na doom jooju toll nu rey nañ ko di ci ah, sëy sëy la ah, ah, waaye léegi sere luy eh. foofu ci sëy la la ëmbalee waaw ci biir sëy booba war a gën a sal booba war a gën waaw dañuy laaj mbaam bi moom. ñëw am fit bu kenn amul cinq minutes cinq minutes. moom day def lu ko ah, waxin la rek. waaw waxin la rek pour nit xam ne ndeysaan waxin la rek. dafa wax rek dégg nam ndeysaan. waaw ndax l'islam buñ bu la alquran moom bu tegoo taabal ji rek ñu wax dëgg ji. day daal di saf. Mm-hmm. te fépp lay laale. Mm-hmm. bambi. naam bi la charia naan la yow la yow lay jàpp ne yaa yaa jóotu am xam nga mooy temps bi waaw li charia di jàpp mhm. mooy charia euh, yow lay couvrir mhm. lislaam moo yàgg moo yàgg suturaal jigéen mhm. koñ bi waa ji ndaw si dafa am boroom kër mi ngi dëkk Tëngéej wala mi ngi dëkk euh, euh, Thiès day ñëw Dakar di liggéey si mooy boroom kër gi waaye weekend ba weekend lay ñëw ñoo ñooñu asan ñu jaral lijjanti seen mbir ngoog ndekete jabar ji am na ko mu nekkal ci koñ bi ba ko ëmbal ko adduna bi yëpp waa koñ ba quartier ba yëpp jàpp ndaw si jëkkëram ji nii jurul kii loolu nag ko jàpp ci sop ak ak yaakaar mm. ak yàqub deru ndaw si nga xam ne mooy sëy bon ci boppam mm-hmm. chéré ni la mm. d'accord ak lu mën a xew mm. yow bàyyi géral rek est ce que dégg nga saree ni mu mu lay suturaale ni mu lay mais xam nga lu tax ba tey Bambi yow waxoon ni attention Bambi waaw ba tey siiwaloo àdduna toog nga ni kii sama jëkkër juru ko waaw ah, yow mu jigéen xam nga ko ne woo sama jëkkër jii nii ma ne ci buuram jurul sama doom ji yow xam nga yow xam dé sérieux dafay jàpp ni ku góor kee la koy téye ba ci miraas mi sariya day jàpp ni kee bàyyi c'est-à-dire da lay téye li jàpp ni kee mooy baay jëkkër baam bi normal bonheur day ñaan kooku mooy baay bi te bonheur wóor na ko ne moom mais ah xam nga bonheur bonheur moom wóor na ko ni jur ko ndax yaa ko wax jur man wóor na ma ne jur sariya ne na bonheur ngeen est-ce que yaa ko wax yaa ko jur déedéet oustaz sànq war ngeen ko dama lay wax ne la ndax yaa ngi ko déet waaw la ñu waxoon sànq waaw déet am na ñu am ful non non doom jooju doom jooju boo takkoon soxna bari dem am fa juróomi at waaw am doom si diggante bi ba tey doom ja yow ku ko jur yaa ko mais juróom ko te sa doom nga ngénte pour la buum la buum bi waaw buum